ci dend ak tedd ki muy Cheikh Abdoul Moustapha euh, moom nag noonu rek def yor téere di jàng xasida ànd koog nag euh, mboolem ay rakam ñi ngi nii ci ginnaaw Cheikh Amadou Lamine Bara Mbacké moom itam di rakam joo xam ne nii ku ko bàyyi xel la ci lu bëree bëri euh, Cheikh Amadou Fadilou bokk ci jëwriñ yi moom itam lool moom itam bokk ci jàmbaar yi lool waaye nag gis nañ fi ñoom sëriñ Mara sëñ Mbacké Mara ñoom ñëpp tubaarkàlla ñi ngi fii ci ginnaaw mboolem ñi nga xam ne ñooy ok jërëjëf sëñ Jibril lii nag tey lu yéeme lu ma sàmb wala nag fàttali njaareem mas naa am ci genn gàmmu mu demee nii taw fa taw bu bari bu yéeme lool waaye keroog sëñ bi ñu bari dañu war a jërëjëloo ngir dugg ci biir waaye sëñ bi daa waxal boppam nañ nañ daal di génn ndax am na lu mu ci teg ndax yaakaar naa dugg ci bàmmeel muy tàkk yaakaar naa ne muy taw ci nii nga dugg tooy.